rabbi karimun waasiun Maam Jaara bi nekkee ci Tuuba soxna Baali Muntaxa yóbbu na fa ndimbal gu takk goo xam ne ngir jàppale xale yi fa nekk ci seen wàllum dund ndimbal gi nga xam ne indi na ko fa bokk na ci suukar meew couche ak lépp loo xam ne yi rek jumtukaay la boo xam ne dañu ko war a yittewoo ci orphelinat bi soxna si dajale na ko fi nga xam ne moom moo di ci këram gi ci teewaayu délégation bi nga xam ne ñoom la fa waroon a yebal ci seen njiit di soxna Mame Fatou bu Mbul Kayel ak mbooleem délégation bi nga xam ne ñoom la àndaloon soxna Baali Muntaxa nag laata délégation bi di dem taxaw na saytu mbooleem jumtukaay yi nga xam ne moom lañ war a yóbbu loolee lépp mu xool ko ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yeeg délégation bi waaye yebal leen ngir ñu yóbbul ko li nga xamante ni moom la jagleel orphelinat Maam Jaara bi bi ñu agsee ci bërëb bi nag fekk nañ fa kilifa yi nga xam ne ñoo yor orphelinat bi ñu dalal délégation bi nga xam ne soxna Baali Muntaxa xaamoo leen yebal ñu indil ko ndimbal gi nga xam ne moom la fas yéene ànd ak orphelinat bi am na kàddu yoo xam ne jib na fa waaye lu ko jiitu am na visite bu am solo boo xamante ni def nañ ko fa muy visit gi de ñu leeral leen li nga xam ne moom moo jëm ci orphelinat bi ak ni nga xam ne noonu lay doxee. maanaam yow soxna Fatou Diakhaté dafa yoo xam ne xëy na noppi na waaye équipement yi moo des. waaw dañ ko tegee noonu di xaar ñu en attendant rek kii mooy néeg soxna Astu Gaawaan waaw fee mooy néeg soxna may Kabir maa soxna moo moo nekk noonu fii fi ne gone yi ñi nga xam ne nekk bu ñu amee at dañu leen bàyyi ñu dellu seen i mbokk mën leen a xàmmee mais bu ñu war a jàng dañu leen jëliwaat waaw fee bi sax am na daara suñu doon nuyoo sànq mooy seen daara bi gone yi fi nekkoon am na juróom-ñaar ñu ngi commencé jàng ci biir kër gi waaw bisimilah jàll ci kaw xale yi ñoo nekk nii ñoo nekk nii ñoom ñëpp seen yaay dafa génnaat demi juddu waaw am na ñoo daanaka jotu ñoom benn seen seen seen lay sax waaw ñu juddu am xaw na ñoo dëgg ñoo nekk na waaw moom ñii si la bokkoon de fi ñëw lii ab yóbbu ndaw la néeg néeg néeg yu rëy la fii ay gone jigéen ñoo fi nekk ay xale jigéen ñoo fi nekk fii ne am ñaar système xale yi xam ne seen bokk amul mënu leen a yor dañuy indi fi yor leen ñi xam ne mën nañoo yor na mais mu amul dund bi ñu leen kaay téye leen ko soo chaque semaine ngeen ñëw jox leen dund jox leen couche ñu feebar yu bopp daal taxaw ah. taxaw leen waaw taxaw taxaw leen waaw am nañ 4 ans nag a dellusiwaat jàng si nag fii ne ëpp nañ 100 waaw waaye kër gi comme na waaye amagul ay néeg la wax hmm. équipement xaw a des mais nañ ci jàpp ne en temps a a hmm. ndax yàlla allah mi ngi وهبتني لسوى ما زاني وما أو تسوء يا الله أنت الودود لسين خاد الموادة لسرمدا بريلا والقرب يا الله أنت المجيد لسي بان المجادة وخد تلي منك مجدا فاخ ginnaaw visite guidée bi nag am na ay kàddu yoo xam ne jib na fa ci kilifa yi ñu ànd teewlu ko. lii safinatan bi kulli janna min daaratil minna ni yaasal minna ataani yal markabu fii daari minan inda tasin tadxulani daari nan mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi nu sante yàlla sunu borom julli ci sangi sangi Seyduna Muhammad dellu sargal ki nga xam ni yaakaaru murit mën naa boobu fu ne waaye ci moom la yam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ñoo ngi siyaare tey ñaanal Serigne Mountakha Bassir yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba yéene ji mu am ci liggéey Serigne Touba bi mu def ci lu koy njottam te nu ànd koog moom di jëfe ndigalam di bàyyi tereem noo ngi koy koo xam ne yaa ngi sos daal dox daara ji nga xam ne mooy orphelinat kër maam jaara ñëw fi nag ci ndigalal soxna Baali Muntaxa waaye bi ñuy ñëw nag mu boole noo koo xam ne jëwriñ la ci kër gi di kenn ci moom waaye di di soxna sëriñ bi muy soxna maam Patu Touré mu mel ni moom bu ñëwee mel na ni tey jëmmi sëriñ mu Mountakha la ñu àndal waaye jëmmi soxna Balit mi ngi fi moo tax moom la njëkk présenté ñu xam ne moo ñëw tey jiite délégation bi nga xam ne moo bàyyi ko Daaru Minam kër sox kër Serigne Mountakha Bassirou waaye nag ci biir wanagu soxna Baali Mountakha kon soxna Mame Fatou ñëw na ànd ak jëwriñ soxna Baali njaay ak soxna Ndey Diop ak soxna Sali ak mboole mbokki taalibe yi ak kuréel gi nga xam ne nag mooy nuuru daaree ni jëwriñ Serif Ndiaye mi ngi nii taxaw ak Serigne Youssou Yadd ak Serigne Khadim ak ñoom ñi ñu àndal ñëpp ci kuréel gi ñu ñëw teewal fii soxna si ci liggéey bi nga xam ne baaxoo na ko bi ñu umee koor ba tey mu koy def ci liggéeyal Serigne Touba di jël ay lu mel ni ndogu walla yu ñuy xewloo wala lu ñuy jëfandikoo ci koor koy yóbbu ci mboolem barab yi nga xam ni des na ko tudd alxuraan wala ñu fay tudd sëriñ bi ndax barkaati démb ci nëgën yi temb ñu ngi woon ci jumaay seen tubaa ji kuréel ko nga xam ne kuréelu xitma yor liggéey soxna si fa nekk ànd ak mbokki taalibe yépp am fa ñaari fan ak ñoom soxna maam Fatou Touré mi ñu nekk ci liggéey ba ngir lan bernde maam jaara yi nga xam ñoo ne foofu ci poroxaan kon bu ñu jógee foofu nag ca maam jaara ci poroxaan kon yàlla na lii mooy daara jiidu orphelinat Maam Jaara fekk si leen fi soxna Bali wax ni nag nañ fi ñëw yaatal liggéey bi ba mu agsi fii ci teraanga yi nga xam ni moom ngeen gis noonu lu jëm ci meew suukar ndox ay kuus ak yu ñuy naan ak lépp loo xam ne rek xale yi fii dinañ ko soxla di ko jëfandikoo lu mel ni meew mi euh, de première âge ak deuxième âge lenn lu ci ne rek fàggu na ci fukki douzaine ak juróom kuus yaa ngi nii sunu ginnaaw moom daanaka kenn mënu koo lim ndax dafa a dèjà lépp ngi ci ak ndox yi ak suukar si ak lépp loo xam ne jàpp na ni rek ndaara ji dana ko soxla moom la soxna Baali wax ni nan ñëw fii teew indi leen ko ndax kat kuy la jël sëñ Tuubaa boo ko jaaree ci alxuraan liggéey boobu àgg na ndax Seydunaa Muhammad mi nga xam ni moo gën ñëpp la ñu yàlla taktal bi yàlla wàccee ci moom mooy alxuraanu karim sëñ Tuubaa it lu mu am alxuraan ak ko may kon moom bu dee liggéeyal sëñ Tuubaa rawatina ci weeru koor kon fu ko jaarale fu dul ci alxuraan rek jaar ci alxuraan a gën a gaaw moo tax muy def lii yóbbu ci jumaa dem Porokhane ñëw fii ci ofil jaara te insha allahu rabbi fii ba koor gi jeex nii la ko fas yéene ci yeneen i liggéey mi ngi sàkku daal ngeen ñaanal ko ñaan ngeen ak lim ci bëgg mooy sëriñ Muntaxa yàgg fi rek te ànd ak wér moom benn bëgg-bëgg la am mooy na fi sëriñ bi yàgg moom mu yàgg topp ci ginnaaw sëriñ bi te yàgg koo liggéeyal ndax xale yu toll ñi yoo xam ni kenn amagu ci bàkkaar di xale yu ndaw yoo xam ne alxuraan rek na ci ñoom ñii lu ñu ñaan sa borom di ko delloo lu ñu ñaan yàlla nangu ko kon yàgg fi loolu te ànd ak wér mm-hmm. waaye moom it mu topp ci ginnaam te yàgg koo liggéeyal mm-hmm. ñun ñii ñëpp ñu ànd ak moom liggéey bi aousubillahi mina sheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi man wala mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñëw nuyu baax te di leen delloo ziara di am mbégte nag di leen tey ci daara ji ñu woowee orphelinat Kër Maam Jaara muy barabu taxaw jirim ak baayo bi ñu yëkkati fii ci Touba ci ndigalu xalifa général des mourides ngir taxawu tuut tànk yi nga xam ne ñoo judd rek seen yaay génn àdduna ñuy ay liggéey toxul toll ci nàmp te firaguñ te amuñ kenn ku leen taxaw wala ñi nga xam ne seen yaay dafa wéer di wéer di xel bi mënu leen a yor ñooñu lañ dajale ci kër gi suñu ko kër maam ñëw dinañ fi dinañ baax di lu baax kàddu yoo xam ne yëkkati nga ko waaye ko teg loxo yi euh, soxna euh, Mame Fatou Touré moom moo teew ci turu soxna Baye euh, di ko jox nuyoo ngi mu joxal ñu ko soxna si di ko wax ni fii mu ñëw këram la ndax kenn si ko liggéey liggéeyu Sëriñ Tuubaa la kon mën na liggéeyu maam la ñu ngi ko liggéey yëkk tamit ci dëggal ñaanu gi nga xam ne Sëriñ Tuubaa ñaan na ko suñu borom ni ko na ma def may mbégum jirim yëpp jirim bu ma xam na fàttali ñàkkoon waajuram

kii fi toogal Sëriñ Tuubaa tey muy Sëriñ Mountakha Mouhamadou Mountakha Mouhamadou Bachir ñaan suñu borom yàgg fi loolu te ko le 5 juin lañ fa dem ginnaaw magal magal Poroxaan ndax dal gum nekkoon te mu xaw a yéex kenn dañ ko wax li mu njëkk wax mooy liggéey Sëriñ Tuubaa boo gën a màgg man xaw ko te saas daane naa ko ànd ak yéen yëkkati ab lim bu ma téeméer junni ci saas teg ko ci ba ba ba fi mu man nañu kàddoom jugu ci ay ñaanam jugu ci mm. loolu ñu koy sant baax di ko seeral kon chance bu ñëwaatee def lii mm. kon sëñ bi si mu taxaa rek mi ngi ne liggéey maam la li nga ñaan daal ci si mm. mu ba ñaan suñu borom yàggal ko fi si mu taxaa moom Cheikh Bassirou sax doy na sëkk roykaay rawantaay bi mu ko toogee kon lépp lu xool ba jox ci atta meloon loolu ñun li ñu liggéey bi li ñuy jege saa yu ñu ko fàttalikoo daf ñu am lu ñu joxaat mm-hmm. kon nañ xam liggéey li fi nekk ay tuut tànk lañ ëpp mën nañu seen yaay dafa génn àdduna bu ñoom fukk mën nañu juróom-ñeent seen yaay dafa génn àdduna ay liir lañ hmm. am na ñoo xam ci kër gi lañ leen tudde ñi ëpp waa Touba lañ am na ñoo xam ci biir Touba lañ lañ leen jële hmm. am na ci benn gox bu yëgoo rek hmm. ne ko wax sànq seen yaay muy dund naam waaye tàggoon ak sagoom ba mënu leen yor loolu nag xew-xew boo xam ne ñu ko wax sànq tey ñaata bakkan ñoo faatu ndax seen yaay génn àdduna dañuy wax ne miin loolu ana baayam topp leen ndeyam may na topp ndeyam taxul suñu borom indi ko ci kaw suuf dañ koo nattoo ñoom ñu fi nekkee ba xam lu ñu ci war a doxe ndax wal yaxsha loolu alxuraan wax yéen ñi fi nekkee le dese njabootu ñi xam ne ñeen di jiitu li leen yàlla seen borom bu ngeen nekkoon ci biir suuf nan ngeen bëgg ñu taxaw seen njaboot googu rawatina xaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi nga xam ne tey mooy mooy lépp loolu waxoon ne man maa képp kuy taxaw jirim ëllëg maa yow samba ñaar baa ni ñu dellaay dana yow ci àjjana ana wa kaafile tim kaxatli fi àjjana ne jëmmali wax yooyu ak rawatina ñaaru sëñ Tuubaa gi moo tax ñu fii ñu wax yéen tey fii lu ëpp ñaar téeméeri gone ak juróom ak juróom-ñaar jaar nañ ci kër gi ba génn ñu ngi fi yéen ay ay mbootaay la ñuy indi mais bi ñu dem seen tànk la dox lay la mooy ñaanu sëñ Tuubaa dëgg fii dëggu wax ne xale dafay dugg yore mbootaay dem ba yor fi ay ay liyaasam dem liggéey ba am dem defi leneen loolu naal bi fii ñu fekk loolu lañ fi naal incha allah bërëb bu yaatu la ëpp na un hectare ñes nekk liggéey la boo xam ne moom liñ ci jublu rek mooy damu bëgg suñu Tuubaa ndax xam ne ak ñaanam faaw day am

gërëm ndax yàgg nañoo dégg ay yéeneem ak ay xalaatam ci kër gi kon ñu wax saytu moo leen nday jëriñ ñoo xam ne ñooy taxawu kër gi ànd ko soxna am moom suñu soxna bu kon ñu ngi nuyu ñëpp leen jaar ba ñaan yàlla suñu borom defal ñu ndimbal ak tawfeex wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rabbi karim